asalaamaaleykum mbokku téléspectateur UD TV la télévision du Jolof dal leen ak jàmm ci seen numéro nouveau numéro seen émission bi naan focus sport bon comme ni ko daan defee chaque lundi rek mooy dañuy njëkk a joxe info sport bu am ci xew-xew yu am ci euh, semaine bi euh, balaa ñuy dalal sunu gan bi. maintenant xew-xew bi am mooy ak Angleterre ñu ngi doon jouer seen traditionnel boxing day bu jouer chaque le 26 mois c'est-à-dire que chaque après fête de Noël. depuis 1871 jour jour de férié lañ koy historiquement dañuy personnels personnel besoin yi la euh, des gens défavorisés yi la jox colis cadeaux ñi leen des jox et des employeurs les bienfaiteurs Nous ñoo des bëgg nañ kii bi am nañ pour joxe yenn cadeau yi. au programme keroog samedi Leicester joué na ak Manchester United ñu def deux buts partout Aston Villa gagne na euh, Crystal Palace à domicile. Southampton euh, Fulham ak Southampton doon match 0 zéro bi partout Manchester City ak euh, Newcastle aussi joué nañ Manchester City moo gañ 2-0. Chelsea ak euh, Everton Everton moo ko 2-0 Arsenal ak euh, Chelsea ñoo ko moo ko gañ si dimanche bi aussi joué nañ Leipzig Brighton Liverpool West Bromwich Wolverhampton Totte Tottenham loolu la Boxing Day bi amoon si jour samedi bi ak dimanche bi maintenant aussi limogeage mooy Paris Saint-Germain dàq nañ seen entraîneur bi muy Thomas tourel depuis bi mu gagné contre Strasbourg moo gañ 4-0 mais si leen ko limogé si la ko club bi Monsieur. maintenant ki ñuy pressentir wala ki ñuy xalaat moom mooy ki gën a jege foofu moom mooy Mario Pochettino mooy ex entraîneur Tottenham boo xam ne gën na nekk entraîneur depuis novembre 2019 la ko Mourinho kii remplacé maintenant moom lañ sentir que moom mu yor Paris Saint-Germain pour màggal de ci championnat bi maintenant même dans la semaine aussi joué nañ coupe coupe CAF mooy euh, avec notre équipe représentatrice mooy euh, Jaraaf de Dakar mi ngi doon mu recevoir na si au la Lat Dior keroog mardi keroog mercredi recevoir oon na San Pedro bu Côte d'Ivoire mais malheureusement San Pedro moo daal moo ko dóor à 0 bii bi ko dugal ñu ngi ko dugal la 41e minute par Soumaora mooy équipe bu Côte d'Ivoire bi kon moo gañ match aller bi maintenant match retour bi ñu ngi koy jàpp si le mercredi 6 décembre mooy mercredi bi ñëw 6 6 janvier du moins donc. espérons que Giraffe dina def exploit boobu pour mën qualifier ci prochain tour Coupe CAF aussi la Ligue africaine des champions aussi joué nañ ko ci semaine bi Teungueth FC nous recevoir une équipe bu expérimenté moy Raja Casablanca ici à Thiès au stade La Dior maintenant Teungueth FC ñom ñaar tim dañu def match nul zéro bi partout Teungueth FC war ko fekk le mardi 5 janvier donc espérons que aussi Teungueth FC dana def tamit exploit ou wala djema match nul ak mom un bi partout wala djem ko gagne pour meuna quali qualifier au second tour. maintenant xam japp na chaque fois bu neme équipe marocain yi wala bu neme équipe bu maghrébin yi dañuy dañuy dañuy dominer dañuy gagner mais espérons que Teungueth FC tey dina def exploit bo pour ma kii peut-être amul expérience et compétition bi mais ñu koy ñaanal dal mu meuna nek mu meuna qualifier au second tour. aussi le démarrage du championnat est prévu pour le 2 janvier Moi, la ligue professionnelle Dans Sen calendrier le 2 janvier nous ñuy jouer la championnat avec le protocole sanitaire de la fédération Guinée. espérons que les équipes soient respecter pour nous démarrer correctement le championnat au programme nous avons à la première journée nous avons Jambar moi, l'académie FC contre Naretali. nous avons Stade de Mbour contre Dakar Sacré-Cœur nous avons AS Djeraf contre Mbour Petite Côte nous avons l'AS Douane contre Seneps de Thiès. Nous avons le Tengue FC contre le Casasport. Et nous avons l'AS Niamour contre l'AS Pékin. Et nous avons enfin le US Gorée contre Génération Foot. Le Monek programme première journée. Même en Ligue 2 aussi, le programme première journée Nous timit le 9 le jouer parce que c'est la ligue professionnelle nous au programme nous avons Thiès FC contre Duc Dakar Université Club nous avons Demba Diop contre Lingard Saint-Louis nous avons le port autonome de Dakar contre Major... Nous avons aussi la Renaissance de Dakar contre euh, RG, EJ de, de, de, Fatigue. Nous avons aussi le Sonacos de Jeruel contre le Africa Promo. Nous avons Diamond de Fatik contre Wakam. Et enfin, nous avons Guédiouaï contre Amitié FC. Le programme national, le programme national qui Ligue professionnelle de football. Nous avons démarré ce championnat le 9 janvier. Aussi, la Ligue amateur aussi nous avons démarré aussi le championnat à savoir le 9 janvier comme pour le national 1 et national 2 yëpp ñoo war démarrer le 9 janvier mais comme nous on est à Dara, peut être li ñu la national 1 la national 2 du moins puisque son équipe bi fa lay évoluer mooy laay sa Daara euh, samedi mi ngi doon jouer match amical contre contre euh, premier match amical on peut dire parce que match amical la boo contre une équipe bien structurée mooy c'est-à-dire le Jolof Olympique club bu euh, l'international international Pape Aliou Ndiaye malgré ndam demul ndam parce partout lon def Aïssa aussi yu def jël nañ tribune mi-temps pour réaction à la mi-temps des des supporters. Euh, réaction bu am ci première partition bi que déjà ñaari équipe yëpp commencer ak euh, une forte pression voilà des deux côtés gis naa ni ñaari équipe yëpp dañu jouer ak pression boo xam ne c'est-à-dire libéré wuñu li amuñ benn libération du point de vue tactique ak du point de vue technique. ñaari équipe yëpp am nañ présence ni ma gisee tamit euh, Jolof Olympique vraiment tamit seen euh, seen préparation baax na quoi physiquement booy tactiquement pare nañu taxaw nañu am nañ présence ci biir terrain bi AS Dakar tamit euh, xëy na seen match entraînement yi bëri c'est ma ko mais li ma fekkee tamit démb ak tey. Euh, peut-être euh, ñu ci yoon bi ah mais amna na tamit ay manquant ah, am na ay manquement quoi ndax boo xoolee ci walu euh, ci walu axe bi manque ni foofu libéraux quoi milieu terrain tamit amna nay quelques failles. mais je peux dire que les deux équipes ñu ngi ñu ngi quoi par exemple chacun cherche à des équipes des équipes l'autre quoi booy xol par exemple Jolof Olympique yow ñom présentement dañuy jouer par exemple en défense bas booy xol aussi tamit par exemple ASC Daara yow ñom dañuy dañuy jouer par contre attaque quoi il y a eu beaucoup de déchets techniques. Euh, même euh, sur le côté tactique aussi, l'occupation du terrain euh, pose énormément de problèmes. Voilà. le problème là. un problème également la transmission. Il surtout si vous li les dernières actions les derniers ballons donc y un problème on voit que des fois nous def des séquences sur solo mais arrivé à la, à la, à la, à la troisième à la troisième tiers problème fay am. ni ñu ci la bokk quoi synthétique ay ko fi mais tamit euh, volonté ak ñi euh, terrain wax tamit ñu ñu ci na aussi marché bu aussi. Euh, jël nañ réaction les deux entraîneurs comme entraîneur AS Daara mi ngi koy expliqué mi ngi koy mi ngi koy doon wax keroog mu naan bon euh, résultat bi bettu ko peut-être équipe bi équipe B était mieux préparée que que que lui que son équipe parce que ñoom commencé nañ depuis deux mois cette préparation alors que AS Daara mi démarré qui di démarrer même pas un mois donc. Euh, il juge que Boy respecte na leen ko Boy respecte nañ consigne aussi match bi aussi joué nañ ko avec beaucoup de rythme loolu si chercher en plus mu ngi wax aussi gars yi pression bi nga koy bi bi être euh, li ko dirigeant yi teg mooy mm, avec un grand budget boo xam ne la montée rek lan lan soxla nee na loolu amu si benn pression aussi mi ngi travailler rek mi ngi liggéey parce que d'ici peu war na am benn match amical dans la semaine benn match amical contre euh, à bon espérons que match boobu aussi mu dem tirer si encore les enseignements pour mën a préparer son premier match le 9 contre Ndar euh, il euh, y a eu une opposition et il y a eu sur le plan tactique aussi des choses très intéressantes et on a eu un match nul un match nul très satisfaisant et on va continuer le travail. Sur le plan offensif, il faut, il faut dire aussi que qu'on n'a pas de tueur parce qu'on aurait pu marquer beaucoup de buts, mais on va y travailler. On va y travailler. Sur le plan défensif aussi, automatisme, bon, nous, comme il le faut. Donc, euh, c'est pour vous dire que le travail reste, mais on a encore une semaine et plutôt deux semaines pour parfaire nos armes quoi parce que mercredi prochain on va dañu le match amical donc notre objectif aussi on me l'a clairement défini c'est d'être premier on travaille là-dessus et on souhaite euh, s'il plaît au Dieu d'être premier comme l'année dernière est vraiment ministre bi nous mu ñu jàppale woon ba gazon synthétique de na gën quoi mais sur ce damay kon ne le programme national 2 mooy le 9 il y a l'ASC Pench qui reçoit le barguet de Kébémer Aïssa Dara qui reçoit mm, Ndar euh, de Kendo de Louga contre RGM de Saint-Louis et enfin la Dagana qui recevra ASCAS de de Louga loolu moo nekk programme deuxième programme première journée c'est si poule nationale nationale 2 poule C. Maintenant aussi on a écouté aussi la réaction de de de du coach de Moussa Ndiaye coach Jolof Olympique bi mi ngi koy wax nee peut-être ay gone la gone aussi ils ont respecté les consignes et liggéey rek bon dañuy continuer liggéey parce que depuis deux mois ñi ngi nek ñi ngi ñi ngi commencé seen bi état terrain bi aussi joué na ci parce que dañu permettre gossi ci duñ si ci a produire correctement seen jeu mais néna na mënu si dara parce que gossi fi leen recevoir ces matchs match kon il va falloir que ñu adapter ñu adapter ko ñu habituer ci terrain yi melni parce que partout au Sénégal pratiquement terrain yi lañu jouer joué aussi

boo xoolee équipe bi deux la def te jour bu nekk nag jëluñu defar la dañoo dem def ay test jël ay jeunes ay xale pour defar leen te yaakaar naa ne man si milieu boobu laa bokk milieu pour defar pour jeunes yi mun a sant ne lu ñu jàngal ñun ba ñuy nekk centre di defaru pour dem ka pour dem France si wala pour dem Europe si lii lañ jaar moo tax ne ñun si lool lañ leen di teg si voie yooyu comme li ñuy wax rek day metti pour yëpp ñëpp nga trouver leen ñu defoon benn un an dinaa leen fu ñu nekk wante fu ñu toll nii comme ay deux mois ñu def ko ensemble da ngay ne am na lu ñu bëgg ñoom te jeune bu bëggee dara rek te si def kattanam ak fulam te lii ñuy gis ni mooy football tey li ma gis deuxième mi-temps joxe nañ lu ñu leen doon jàngal moom la ñu indi tey wante nag comme li ñuy wax résultat si la bokk ci football wante comme li ñuy wax ne ay daara mooy suñu mag ñun dañoo topp seen ginnaaw dañuy defar te loolu laay wax man chaque jour loolu laay wax daara mooy équipe bu mag mooy foñoo bi ñun dañoo nekk fii pour defar jolof lañ nekk dañuy defar jolof bi yëpp ñun sant lañ ku fi ni capable war a ñëw nekk fi rek fi nekk ñun dañ bëgg teg benn pas boo xam ne pas boo xam ne liggéey la liggéey pour centre bi pour centre bi mun am dara wante comme li ñuy wax bu ñuy fóol match ak match dama koy bëgg a gagné tey loolu gagné yooyu mooy tax nga tey nga sant ne war nga division bi war nga ko mën a tëb wante comme li ñuy defar rek dañuy nangu defar di muñ te xam naa ne duñ ñii rek la ñuy fubal dañ dem testé waat ñeneen pour xoolaat équipe bi pour ñu mën a defar li ñu bëgg daal waaw day metti wante comme tey ñun fi lañ nar a recevoir wala li il faut ñu nangu loolu il faut ñu nangu jeu suuf il faut ñu nangu teg bal bi équipe bu desee si kaam il faut nga sotti bal doo jël rek di dégager moom nekk kaam te yaakaar naa ne loolu lañ leen sant te man loolu laa jàngal football bu nekkee ne sant la il faut ñu jàngal leen football te bu ñu naa ne lii ñuy def ni si métier daal te yaakaar naa si la ñu bëgg ëllëg ñu bëgg ñu seen

mais ñoom bëgg nañoo def benn benn projet lañ yor projet bi daal bëgg nañ ko accomplir peut-être à long terme wala à court terme ñoom dañ ko définir seen biir. kon mbokk téléspectateurs yi ñu loolu la leen indi loonu ci partie info bi ñu taaxiru tuuti pour dëggal jéem a dugal sunu gan bi. Eh, eh, eh, wow, mbok téléspectateurs yi UD TV comme niñ ko annoncé won si première partie bi dañuy dalal sunu gan euh Lamine maa ngi lay nuyu. waaw xaw ko ci laay wax xaw journaliste Mbaye Ndaw ma lay fay. waaw Lamine sama tay lan dalal d'abord dañ koy ñëk a mu wax kan moy Lamine bu la wax dal bi ngay xam si sport beeg si liggéey bi yow kan moy Lamine Gassama. waaw jërëjëf euh ma ngi am ki kii mbégte. di la remercier ci invitation bi di profité ci occasion bi aussi di sant ñi nga xam ne vraiment ñoo taxawal télé bi ñu koy wax IDTV. pour waa Daara pour Jolof yëpp. te wax dëgg yàlla mi ngi def liggéeyam. xale yu nekk ay xale yu dynamique ay xale yu ambitieux. ñuy góorgóorlu luñ mën. waaw donc ma leen di eh, remercier di leen féliciter bu baax. waaw donc comme ni ma la ko waxee rek man fan yëpp gis naa la ngay ngàbb micro mais mosuma xalaat ne sax da nga fiy góorgóorlu vraiment lii am na solo. Euh, d' autant plus que yow tu es un coach de football tu es ëllëg di wax. Mhm. devant les écrans avoir l' habitude maintenant c' très bon. Mhm. donc ma lay féliciter di la encourager. merci bon man nag je pense que ci ñëpp xam nañ ma Lamine Gassama. Mhm. waaw sama papier ñëpp xam ko Mamadou moo ci nekk am na ñoo xam ne sax boo nee Mamadou la xam. waaw nekk euh, agent municipal. Mhm. di liggéey fii ci commune Daara. Mhm. nekk euh, le surveillant comptable des hauts marchés. Mhm. di yëngu nag ci li tax ngeen invité ma fii muy wàllu sport particulièrement football. ñëpp xamee ma ko. mu nekk loo xam ne yàlla def ma bëgg ko sama xol. donc maa ngi liggéey ci mairie bi nekk comme ni nga ko waxee di yëngu ci football bi di yëngu ci sport bi en général. mais football bi moom nekk na loo xam ne aussi un membre du comité directeur de e je suis aussi le chargé de la formation au niveau du bureau de la Je suis aussi le président du district de football du département de l'INGER. bon suis aussi un membre du comité directeur. Euh, de la ligue de football de Louga. suis aussi ci comité exécutif de la ligue de Louga donc euh, voilà je pense que pour le moment le rôle mon rôle dans le football donc football dans le département je suis le patron de football dans ce département. dans merci beaucoup Gassama euh, wax nga am solo euh, formation au niveau de e et et faut la démarrer sunu sunu bi. mooy surtout chez les jeunes parce que dañ daan gis da nga daan yëngatu si petite catégorie AS Daara ñu toog un temps aussi gisatuñ la si bëgg xam la moo tax loolu wala peut-être moom moo doxatul wala bon yow yaa préfère retirer aussi loolu. waaw d'accord Mbaye loolu c'est vrai que deux ans ngi nii mën naa ne la presque wala waa wala trois waa deux ans ah. mhm. yoo xam ne AS Daara participe wul en petite catégorie. mooy mhm. cadet cadet catégorie cadette ak catégorie junior senior. Mhm. junior. bon man nag euh, rôle boobu peut-être maa ngi chargé de la formation mais euh, ci wàllu euh, football bi ci wàllu terrain ba. Mhm. c'est pas mon rôle parce que man nekkatuma entraîneur. Mhm. bu njëkk moom ci comité directeur ASC Daara bu njëkk dañ ma defoon. Mhm. chargé de la petite catégorie. comme man la defoon chargé de la petite catégorie rek lépp loo ma mënoon def ba petite catégorie bi dox. dama ko daan def. mais maintenant post boobu joué ko ci ASC Daara nekkatuma ko. avec euh, comité directeur bi fi njëkkoon na jàll avant bii di ñëw. ci lañ commencé woon am problème boobu. parce que man dafa am système boo xam ne moom laa doon defee. ñoom bi ñu ñëwee te kuñ fal nag yaay yaay yaay chef bopp. bi ñu ñëwee ñu ne ma man système bi ma doon defee ñoom baaxut bëggatuñ ko. ah man comme boobu laa ma ne woon ma retiré wu. mais je pense que depuis boobu ba léegi. xeeb nañ li ma doon def far. defuñ sax far lu loolu. Mhm. yaa gis nga ne ASC Daara trois ans yi nii. trois ans je crois amul petite catégorie. Mhm, mhm, te loolu nag bokkul ci lii dafay développé football. mais boo nee formation au niveau de l'AS Dara le mot moo boobu comprendre quoi formation à propos de quoi. voilà xam nga formation dafa vague. par exemple man mënoon naa di sa équipe bi actuellement. dafa taxawut taxaw goo xam ne yow mun nga ci dugal leneen lu mooy football. lu mooy football surtout. parce que actuellement équipe bi le président moom li wax c'est très clair mon niveau mu wax bëggu deux bëggu trois paix la bëgg. donc son objectif. c'est la montée. moi montée nationale 1. Ah, ah, donc dafa am objectif yoo xam ne boo ko amee leneen du ci mën a mhm. ce qui fait que man damay bàyyi ba équipe bi taxaw ba objectif bi nga xam président bi am na ko. Mhm. ko atteindre. Mhm. moom mën parce que formation dafay yaatu. man mon naa créer formation initiateur de football. mon naa fa créer. formation ay école entraîneur ka ay ñuy encadrer école de football. Mm-hmm. mën naa former ay ay ay par exemple euh, ñi nga xamante ne euh, ay ay ay administrateur lañ ñoom xam ne mën nañu encadrer équipe. Mm-hmm. formation li mu mën a nekk dafa bëri. Mm-hmm. mais pour le moment. équipe bi dafa yor un objectif boo xam ne dafa dafa diis diis boo xam ne. man bëgguma ci dugal leneen parce que loolu lépp ça demande beaucoup d' argent. te j'ai vu que ne peut vraiment actuellement xaalis bi ñu mën di am ci. football lañ koy versé pour atteindre notre objectif mhm. donc may ñaan rek objectif boobu ñu am mhm. le président am ko mhm. ak le comité directeur de l'ASC Daara yàlla na yàlla def incha allah fin saison prochaine ñu réussir ñu atteindre ko. bon je pense que aussi formation bi ngay wax nekk nga wax bien avant que ngay nekk poste boobu parce que beaucoup de jeunes si dëkk bi léegi ñu bëri say loxo lañ jaar yaa leen formé si petite catégorie bi. Et je pense que vous êtes aimé et vous êtes euh, respecté par les, par les jeunes peut-être. Ban secret la Voilà, effectivement formation bi même bu au niveau de la FEDAR nga xamné day officiel. Mhm. Man jël ma koy appliquer au niveau de sama côté. Mhm. Parce que comme nous ko xamé nous mhm. bari xamé ko ko dama créé une ben école de football école de football yakar ñepp xam nañ ko. Moi, champion départemental au niveau de U15 je crois. donc euh, champion départemental sortant. donc may féliciter au passage le coach Aba mi fi nekkoon di ma jàppale. Mhm. di féliciter l' ensemble des joueurs. Mhm. xale yi nekkoon foofu ay xale yu dynamique yow xam nga dara yow ci nga bokk malgré focus ñëw na. Mhm. may ko may profité de occasion bi rek di ñaanal euh, mon frère Adama Diagne. borom focus. ak l' ensemble des dirigeants yi créé yeneen école de football. parce que xam naa li nekk ci créé école de football métti bu mu métti. ñu créé école de football ma lay ñaanal yàlla donc voilà man loolu la man petite catégorie man daf maa yàgg a ñor. donc euh, moo tax ma créé école de football à que nu ma gën a utiliser structure ASC Daara parce que ASC Daara budget bi météo ko noonu. ma du ci dugal yeneen ma daal naa en attendant comme man formation moomu ma sa ñor. yàgg nañ ma bëgg. dañ nañ ko ba des jeunes. l'ami nekk tur boo xam ne ça me plaît beaucoup. Mm-hmm. moo tax man ma naa créé école de football. yàgg na nag école de football bi mais depuis deux ans yi moom investissement bi ma ci def mosuma ko ci def. Euh, bañ naa ko ba dama indi entraîneur doon ko doon ko jox xaalis. xale yi di eh, di joxe xaalis donc école bi daal awoon na yoon. mais mal malheureusement mbas mii. moom moo bloqué parce que man aussi doomu jaamur du ma leen jël. di dugal ci loo xam ne wóorut quoi. donc mais man loolu yàlla moo ko def ci man. bëgg xale yi yàlla moo ko def ci man xëy na nag xale ne bëgg naa leen. ñu delloo ma loolu. waaye man jàpp naa ne sax xale yi niveau degré biñ ma bëgg man. la ma leen war a defal defalaguma leen ko. mu nekk nag sama objectif. fu ma toll. Mhm. sama objectif mooy fexe ba xale daara. Mhm. duñ ñee kenn. xam ne yàlla ñu man man bi. mais suñuy xel ak suñu xalaat ak suñu yéene weesu na foofu. Mhm. waaw bon Lamine je pense que wax nga ko léegi 3 ans peut-être wala 2 ans voire que ASDAR. Euh, deful petite catégorie mooy junior wala cadet est-ce que le du du football footballu d'ara? d'autant plus que le président Mom, sa son objectif c'est c'est la montée mooy ligue 1 ligue nationale 1 mais est-ce que montée que c'est accent un ben ben comment dirais-je relève si petite catégorie est-ce que le c'est c'est baax na. Comme nga football ba bu la falee. ku nekk yaay seet li nga li nga bëgg ne moom man fal nañ ma mais man. man nii laay doxalee. Mhm. am na ñoo xam ne bu leen mhm. dañ je dañuy liggéey dans la durée. c'est-à-dire dañ naan. travail long terme. waaw dañuy def un travail à long terme. Mhm. créer ndànk ndànk ndànk ndànk ba près deux trois quatre ans. Mhm. nga am objectif bi nga bëgg. Mhm. mais suñu le comité directeur là bi ñu fal. en particulier le président. moom bi ñu ko falee lu mu njëkk a wax mooy moom son objectif ne c'est pas la formation. c'est pas nekk fi di développer di moom objectif am mooy coûte que coûte. ASC Daara fi mu ko fekk na ko yéegal jële ko foofu ñu né jëlé ko fii mhm. ko fi donc mhm. il a le plein droit parce que bu ya guru naa ko waxtaan ak moom ma ne ko soo amee yenn objectif yi mhm. parce que ton objectif principal c'est le numéro un donc il faut avoir une équipe qui est à la hauteur des des tes objectifs donc mom lolu ci lolu nek parce que un budget de 30 millions pour une équipe de nationale 2 je pense que wul donc mom Euh, jàpp naa ne il est en de mettre les moyens. il est en train de réussir peut son pari. da parce que aller bii passé. championnat bi passé. bu ñu ko yemale woon foofu bu ko gars yi yemale woon comme dans les autres championnats ñun dañu doon yéeg. mais malheureusement fédération sénégalaise lu mu doxale bon je ne sais pas pourquoi ñu doxale noonu mais man jàpp naa ne waruñu woon doxale noonu. fi ñu ko yemale match aller yi jeex na dañoo waroon wax ne championnat zone bu nekk ka fa dem day jékki keneen ñëw mënoon nañu ko def. Mhm. mais malheureusement ñoom dañuy reprendre tout à zéro mais kon mën naa euh, président objectif mu amoon réussir woon na ma koy ñaanal nag aussi saison bi yàlla na ko yàlla may mu egg mu atteindre objectif bu mu amoon mën na ko bon parce que football moyen la il a mis les moyens xaj na yàlla dina ko yàlla na ko yàlla may rek mu réussir objectif mais ñoom petite catégorie parce que actuellement même bu ñu réussir monter Mhm. l'avenir du football à Dara c'est un peu Il sombre quoi. sombre oui. parce que le football actuellement partout dans le monde. Mhm. faire du football te devrais Si on tous les grands clubs du monde actuellement ay Barça ay ko mhm. imagine Barça tey que bu formation bu Chelsea ils sont revenus nga ay Manchester City. United peut-être City peut-être il y ay أي أي صارفني مي أي يونايتد نيو أي أي خلينا نيو نيو دونك فوبل بي فو فلانيك نيو نيو ديال سيت أي سيتي أنا كما ديري مانشستر يونايتد أي تشيلسي أي بارسا أي ريال ميم ريال أم نيخالي سيت دي كيب دافونير لو نيو سوفرير اكتيلمون دينن كو بيك تي كانام باسكو فوتبول خالا لا دونك فريمون سي لا ريليف كو اي بريبار لا ريليف مالوريسمون افي دار جيول فوفو نك bon comme objectif pour coach président c'est la montée. Mm-hmm. alors que DAO il avait un budget de 19 millions cette année budget de 30 millions je pense qu'on attend attentive yi mais si politique de recrutement peut-être tu pas vous n'êtes pas le, président de la commission sportive vous n'êtes pas l'entraîneur aussi mais politique de recrutement bi parce qu'il cherche les meilleurs parce que dafa budget parcours national de bi presque benn équipe amu ko ni muy fayee salaire président bi mu koy defee benn équipe def ko prime bi ni mu koy defee benn équipe def ko mais est-ce que politique wu recrutement bi mu def est-ce que politique bu baax na. je pense dafa dañoo defoon bi ñuy def comité directeur ASC Daara bu ñu mujjee def te ma mhm. président en personne dafa waxoon ne ren ñu def test. waaw ren ah, on a déjà les joueurs qu'il faut. Mhm. loolu la waxoon président la loolu la waxoon. Mhm. mais li ma gis ak li président waxoon. je pense que y' a différence. parce que gis naa depuis boobu léegi ñi ngi làmbatu joueurs yaa ngi ñëw. di dellu te bon le président avait dit que ne on a une liste je pense que l' entraîneur doit amener je crois neuf joueurs. à peu près daara bu ñu fi jëlee cinq wala six dañuy am un nombre de vingt huit wala trente. donc man man loolu jàpp naa ne jàppoon naa ne. loolu réew lu taxaw la mais li ma gis nii ñuy doxalee. ren équipe bi. boo xoolee tey seen master bi xam ne am na lu ci des. peut na nag que je suis mais des na lu bëree bari parce que nag man ni ma wax président wax naa ko bërki démb kese soo amee objectif jël paie mhm. il faut mettre les moyens qu'il faut. Mhm. pour nga jël paie. Mhm. donc équipe bu ASC Daara bu ñu taxawee rek. ça doit sauter à l'œil nu da nga naan ah équipe bii de équipe baa ngi nii bu ñu footballee nag waxi noonu. mais malheureusement niveau bi des na. niveau bi amul dara lu ëpp ëppalee yeneen équipe yi ma gis yi fi jaaroon daaw. Mhm. au contraire sax jàpp naa ne am na équipe yi ma gis yi fi ñëwoon daaw. Mhm. Euh, suñu changé wul peut-être ñoom ñoo ñu ëpp doole. Mhm. mais xam ne gars yi ñu ngi wut équipe ba léegi pareeguñu. xëy na d'ici championnat bi sori dañ am équipe bu baax. surtout parce que je pense que bi mu commencé légui le 2 la pare yagoul AS mm. dar bi mu commencé demaat le 2 ci mois bi la bon lu mu travail kon donc 25 jours la yam yoo xam ne lay liggéey peut être. espérons que peut être groupe. 25 jours on n'a pas un groupe régulier. ni dañuy dem ni di ñëw. ñii di ñëw waaye. boo ko pratiquement tay match bu mu doon match. Mm-hmm. presque les premiers yi fi ñi fi nekkoon. Mm-hmm. ñoo joué le match. presque huit ans à part quelques exceptions près mhm. ñooñu soo xoolee xam ne physiquement xawoon nañ taxaw mhm. tenir nañ centre bi parce que centre bi ñoom ñoo ñu njëkk a yàgg commencé

mënoo faa nekk. petite catégorie da ngay il faut nga teey parce que xale nga yore. xale da ko war a jubbanti. di ko jubbanti di ko jubbanti muy ak muy maag di dem. ba yàlla def li nga bëgg nga am ko ci. yow ku xam football xam ne football xale. mais mais fii dirigeant yi wax dëgg yàlla ñoom yàgg na ci ASC Daara nag. de tout le temps ASC Daara lu ko gën a sot tey. ba ñu wuti fu nekk ay joueurs. Mhm. loolu ci la gën a mos a bokk. Mhm. dirigeant yi fi mos a nekk yëpp. peut-être Pape Alioune Sarr commencé woon na ko. Mhm. boo commencé woon sonn ci petite catégorie je pense que ci ci ci mandat am ngeen nekkee yéen seen génération bi ci ngeen demoon jouer une finale exemplaire à Louga jouer na coupe du Sénégal Saint-Louis ba Amara Traoré topp leen je pense que saar Sarr mi ngi doon def ay effort mhm. pour que petite catégorie gi jóg mhm. commencé woon nañ am relève parce que équipe boobu je pense que tey buñ bu fekkoon ne tey équipe boobu fekkoon nañ ba téye ko moo je pense que ay ndóoreel ñoo fi nekkoon mm-hmm. ay Pape Samba mm-hmm. yow mi mm-hmm. Ismaïla Nguttu Ahmed Fall ah Idi Idi Idi Mbaye ah donc équipe boobu ah équipe boobu tey majeure partie bi ñu ngi fi te ñu ci bëri tey ku mel ni yow peut-être yow topp nga da nga wuti mais am na ñoo xam pratiquement tous ces gosses là ils sont toujours là ñu ngi góorgóorlu di football ba léegi Ndoré il est là Pape Samba il est la Malaw il mais ñooñu te c'est des gosses yoo xam ne petit de talent la pourquoi gars yi duñu leen récupérer intégrer leen ci bi. est-ce que du ñoom ñoo bañ ñëw aussi. non man am na par exemple Pape Samba ki comment dire Malaw. Uh-huh. inter interpellé naa ko ma ne ko yow la moo tax ñëw un jour ñëw na entraînement. Uh-huh. mais nee na coach moo ne ko bokkoo sama groupe. ok mu génn. Ndoré est-ce que ñoom reproché wu Ndoré. non je ne sais pas Ndoré aussi est-ce que moom woo nañ ko wala woowuñ mais man preuve bi ma am rek ci Malaw la. Uh-huh. Malaw moom mënuñu fi indi ak central bu ko gën. il a fait am na expérience. dóoreel c' est des am mais am nañu expérience mënoon nañu leen intégrer dans l' équipe mais nag. man nekkuma au fond ci biir xaw ma réellement quel est problème lu tax ñoom mënuñu defante ak gars yi. mais ASC Daara foofu la ñu wàcce woon suñu mm-hmm. mais bi kii bii ñëw nii ñoom petit cadeau wax waxuñ ci dara. te c' est pas normal ñuy fubal championnat du ñu am petit cadeau peut être niveau bi bee bees na lool. Mm-hmm. mooy niveau national de parfois. Euh, ñi nga xam ne ñooy dirigeant national de équipe nationale yëpp seen objectif mooy jéem a jógee ci kàmb googu ñu nekk ba nga xam ne duñu xalaat leneen. waay yeeg bëgg. j'espère que yàlla ñu yàlla defal ba réussir ko quoi. Euh, bon merci beaucoup toujours et budget AS Daara est-ce que parce que budget AS Daara dañoo gis ne le président bon le ministre de l'intérieur ak le président parce que bu ñuy wax budget bi 30 millions yi le ministre de l'intérieur mooy Aly Ngouille Ndiaye ñoo na fi jox leen xaalis.

amul benn mois bu ma tardé amul nag kenn ku ma doon laaj cotisation mais comme damaa nekkoon un membre du comité directeur ñu ne ku bokk da nga joxe 5000 francs par mois. Mhm. finalement deux ans dem nañu ba instance benn instance sax ñu changé système bi. Mhm. parce que 5000 bi boo ko joxee saa te carte lay doon pour nga dugg stade affaire yooyu. Mhm. mais man malgré tout ça chaque mois dama doon joxe may woo ma xëy tam ma envoyé ko Orange m malheureusement ren benn yoon comité directeur parce que benn yoon la ñu woote comité directeur mhm. te jour boobu man dégguma ko mhm. ah, ma yaakaar ne peut-être dañoo dindi cotisation wala je ne pas mhm. comme président wax na ne am na ay moyens rek gars yi compté mais tous les membres du comité directeur war nañ cotiser chaque mois. chaque mois oui au moins 5000 francs la ñu waxoon. Mhm. war nañ ko relancer waat. Mhm. pour que au moins beneen 10 millions bi xam naa duñ ko fa mën a am sax. Mhm. ak yenn mécènes yi ñuy war a jàppale. pour que équipe bi. au mois euh, affaire courante yooyu sax les membres du comité directeur ñu ko ci def. mais membre du comité directeur ASC Daara yoo xam ne jour ba ñu wootee réunion comité directeur. ba tey gisatoo leen. te malgré tout ça gars yi woote woon nañ pour renforcer ko mais ñoom tamit jour bi ñu wootee keroog.

Euh, Asdaara ba léegi mooy surtout aspect hygiénique bi mooy surtout ndox mi Asdaara bi soo ndox la doon naane ba mujj gi kenn moo ñoo jëndalee ndox Ablaye Ngom moo ñoo jëndalee échange ndox la moo tax comité directeur ñun mënuñu def loolu di jëndal Asdaara ndox yi ñun ñuy toog foofu di leen pour que gën a rafetal cadre bi ko bon xam nga bëgguma wax ci ay ci comité directeur ASC Daara ñeneen ñi di ko gisee neneen mhm. mais ASC Daara loolu daf si yàgg comité directeur bi en général. jour bi ñuy defee assemblée générale daf comité directeur. Mhm. jour boobu ngay gëj am na ñoo xam ne jour boobu la ñuy gëj a xam sax ne bokk nañ membre comité directeur. Mhm. seulement bureau bi rek ñooy fonctionner. Mhm. du ñu woote ay réunion comité directeur c'est très rare. bureau rek la ñuy woote. membre comité directeur yi am na ñoo xam ne tey boo leen fekkoon fi ñu toog neen membre comité directeur ASC Daara nga ñëw la déedéet. mais membre comité boo xamoo ne membre nga ci ASC bi yow nooy ñëwee di dimbale ASC bi li nga xam ne bëgg nañ. parce que am na fa ñoo xam ne ay membre comité directeur yoo xam ne. du ñu yàkkamti rek mooy match am bañ fa lu ñëw. mais du ñu apporter dara man nag man man loolu man man à chaque fois su ma daan ñëw entraînement bi. bi ñu seen glacière bi. damay ñëw jënd glace wala ma jox kenn ko dafa jënd glace jox équipe mhm. bon mais vraiment ren malheureusement defuma ko parce que li nga wax ren damay ñëw entraînement mais ab CO laay gis. Mhm. conditions yi daal wax dëgg yàlla. te loolu ak contexte Covid bi ak contexte Covid bi ñu mhm. xoolaat situation boobu. ut tamus bi ñu utoon. xaw ma fu mu nekk bu dee dafa xar ñu wut beneen. teg ko fa. au moins ñu koy surveiller bu baax quoi ko defee sama classe bu ñëwee gis situation yi xaw a kii. Mhm. jënd classe def ci wala yooyu parce que man chaque jour damay dem entraînement. léegi yow match tey bis ñoo ko seetaanandoo. Euh, tey la nekkoon ñaari équipe yoo xam ne si dëkk bi la nekk euh, mais bokkul ligue moo kii ñoom ñoo bokk ligue di moins amateur ñoom ñaar yëpp mais bokkul niveau. Azar mi ngi national 1 Jolof Olympique mi ngi division régional mhm. nan nga gisee tey match tey bi. bon match bi nekk na match boo xam ne lu ma ciy wax tey mooy d' abord si ñaari équipe yëpp amal na leen njëriñ. Mhm. vrai que yéexee nañ ko. parce que mhm. euh, wa ASC Daara peut être xaw ma. fan la na blocage bi préparation mais waroon nañ tey au moins nekk seen troisième match. Mhm. wala au moins deuxième match. parce que ñaari équipe yëpp ñoo ngi ci dëkk bi ñaari équipe ñoo war a compétir. duñ ay adversaire ñu sax. niveau niveau kii championnat régional la joué kii. national national 2 donc ñoom ñaar waroon nañ man di mottalante mhm. li manqué parce que tey match tey bi am na solo mhm. bien vrai que dug bit amul mhm. mais boo xoolee euh, ci centre bi comme ci waa ASC Daara individuellement y a des joueurs mais la pl kii bi dafa des boo xoolee ñaari équipe yëpp peut-être que centre bi ñoo xawoon tane mën nañ tenir def 3 4 passes mais ñoom c'est des jeunes ay xale lañ ñee ñu leen xaw ëpp doole donc boo leen xoolee xam ne ñoom c'est des gosses yoo xam ne boo xoolee deuxième mi-temps bi yëpp ñoom ñooy tenté. Mhm. ñooy tenté élaboré. te mais ñun suñ deuxième mi-temps suñu góol premier mi-temps j'ai pas bien suivi le match. Mhm. mais deuxième mi-temps premier mi-temps départ du naan si góol bi doon na relance ci côté bi gars yi mhm. amul benn yoon presque boo xam ne góol bi relance la. gars dañuy dégager rek. góol bi day teg 6 dóor football boo xam da ngay teg 6 dóor gisatoo ko est-ce que est-ce que c'était contre le vent ñu bëggoon jël risque moo tax. ñu mhm. mu dem défenseur am na. Mhm. championnat national bi loo ci mën dégg aussi défenseurs yu aguerri la di am. Mhm. yu baax. ak ay militaire boo sànnee bal bi dañ koy téye attaqué na dugal la. donc nañu defaraat affaire bi. rectifier. commencé ci suuf ba ci kaw. te équipe bi football toll na foo xam ne ci kaw la ñuy commencé le premier défense le premier défenseur mooy attaquant de pointe. Mm-hmm. man mënu ma concevoir un attaquant de pointe wala attaquant boo xam ne su bal bi xasee wan la gannaaw jëm suñu camp pare nga ci. Mm-hmm. c'est pas normal bal bi sax waru la wan waru la fa wàcc. Mm-hmm. jëm suñu camp. boo xoolee football moderne yëpp tous les grands attaquants. dañuy ñëw ànd ak action yi. attaquant bi gën a naqaree marqué mooy attaquant bi nga xam ne day jógee zone ànd ak football bi ñëw. day réer défenseur. mais attaquant boo xam ne fi nga toog ngay toog booyal sa attaaya. mais kooku ku lay marqué day yomb. moo tax moo moom frère wala moom fils Ali Dieng. attaquant ASC Daara il faut que ñu liggéey la defaraat ko. parce que moom pratiquement moom day taxaw ci kaw rek di xaal bal bi. moom baaraangoom aussi habitude boobu am na ko. quand on attaque on est à 10. mais bu ñuy défendre on est à parce que du défendre. loolu baaxul si équipe. ok bon bon je pense que xam ne. ok. attaquant yi dañuy attaquer rek. défenseurs yi défendre non non non c'est un bloc. il faut que ñuy àndandoo di attaquer di àndandoo di défendre. attaquant bu ci bëgg rëcc noonu ngay def day ànd ak gars yi di dellu si. loolu nag kooku physique la laaj. waaw mais bon bon c'était normal parce que équipe bu Jolof Olympique bi ils ont fait deux mois de préparation alors que d'Arena que fait que vingt jours. bon donc loolu la loolu aussi mais équipe Jolof bi da nga xam ne ñoo gën a nekk ay xale aussi. ñee leen parce que ku xool seen latéral gauche bi mu am ñu koy wax naar kooku xam nga ne ñi nekk ci ASC Daara am na ñoo xam ne sax Kade la mhm. dafa mel ne ay moromam yoo fa nekk peut-être ay mhm. Omar Diagne am boo xoolee euh, équipe centre bi ñoo gën a nekk ay xale mhm. ñoo gën a physiquement ñoo gën a taxaw donc ASC Daara lu ñu perte nañ liggéey te ba te yemale rek ASC Daara aussi li may bañ mooy favoritisme bu amee ci équipe rek day yàq nañ yemale ñëpp

parce que état terrain 22 joueurs yëpp ñoo ci yem. état ballon 22 joueurs yëpp ñoo ci yem. en général les joueurs paresseux wala yu taay damay gis ñu naan bal bi baaxul. wala terrain bi di kat ci suuf. non man loolu d'accord ma li nga xam ne ñëpp ñoo ci yem loolu nekkut euh, contrainte. état terrain bi dégg la ñun moom lañ am. ASC Daara défaut boobu lañ am ñun état situation terrain bii ñu am nii. même ba ñu nekkee Ligue 1 waruñu woon a sàggan bay wàccaat parce que mënoo am terrain bu ni mel ñëpp di fool ay tàppi ak i gazon yow ngay fool suuf su bëri ñu lay fekk fii di la ndulli du yoon ASC Daara fii ku ko fekk dalaa war a dóor mhm. dañoo war a habitué di entraînement ci terrain bi sérieusement mhm. jël ko li xam ne moom lañ am nangu ko mhm. di ci entraîné ni ñu ci war a entraîné ku fi ñëw ñu wala la ñu wala suuf si ñoo ko moom bu la fekkee ci tàppi nag bu la neexee nga duma ñu waaye fii ku fi ñëw ñu dóor la te équipe boo gis nag ak à n'importe quel niveau match à domicile yëpp mu koy gagné du mos a wàcc. pay rek lay xëccoo. waaw mhm. ah, boobu na fexe loolu. oui surtout na fexe terrain bi moom lañ ñu am. waaye nañ jéem a adopté wu carrément joueurs yi nañ ko dindi seen bopp. Mhm. état terrain bi nañ ko dindi seen bopp. parce que ci la ñuy mhm. ku ci ñëw dañ la cee war a rey. parce que presque yeneen joueurs yi yeneen équipe buy ñëw ci tàpp la jóge.

Euh, groupe boo xam ne ay jeunes la yor di préparer ben di war a préparer championnat régional mais am na si ñaari booy daara lan nga siy wax si loolu. waaw bon man loolu moom leen rek la ci wax mooy ne boy daara yi war nañ ci gën a bëri. Mhm. comme que base bi fii la nekk. Mhm. man bi ñuy def test ak yooyu j'ai pas suivi. Mhm. moo côté boobu bugguma see sor yi ça fait dire ba man ñaari booy daal rek laa ci gis. Mhm. comprendre ma. Mhm. parce que instant bu ñu def test yi ñu bëri fii yëguñu ko. man moom vraiment lu ma métti la parce que man ñoom dañoo ñëwoon ba sama bureau toog wax ma li ñuy wax. Mhm. mais keroog bañ génnee sama bureau laa léegi gëj a dégg. jàppoon naa ne bu ñu fi ñëw di def yenn yi dinañ jaar ci suñu mel ni ñun. ñu woo ñu ne ñu kat léegi dinañ bés sàngam dana def lii. mooy profité ji occasion bi di ñaanal moom frère Ibou Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko aljanna parce que moom bu fi nekkoon ci sekk ne ñun man ku mel ne man du ci umpalee noonu parce que mm-hmm. Ibou Ndiaye commencé woon na ma informé fu mm-hmm. affaire bi toll mm-hmm. mais malheureusement ba Ibou Ndiaye demee ba tey xamatuma ci dara mais daal lu ma mën a wax mooy ñoom comme ils ont un projet ah ma leen di ñaanal rek parce que projet bu mel noonu chance la pour tout le Jolof particulièrement pour waa Daara jeunes yi nekk daara te bëgg fubal. Mhm. am ay doom ñenn ñi am ay doomu xale. Mhm. nañ leen may seen chance parce que lu mel ni yombul. Mhm. ñun dañ daan jóge fii di dem ay defi test Louga. dem fu nekk pour dem jàmbaar. wala nga dem Dakar Sacré-Cœur. wala nga dem et cetera et cetera te mënuñu woon a am chance boobu ren am nañ centre boo loo xam ne mi ngi ñëw peut-être que ñoom c'est un projet. ñu ngi ci commencement bi. ñoom fi ñu commencé mooy jouer championnat régional. loolu ñoo ngi ci. le reste ça va parce que il faut ñu installer les les kii yi. seen bâtiment il faut ñu centre bi ñu tabax ko. te loolu defaguñ ko. Mhm. pour le moment man du ma leen mën a critiquer parce que mhm. dama jàpp ne équipe bu jouer championnat régional soxlawut euh, boo amee sa moyen bopp. Mhm. te ñoom wax dëgg yàlla en tout cas tubaarkalla Aliou Ndiaye. il a des moyens yàlla ko yàlla suturaal. yokk xéewalam yokk wéram. action père mort ba objectif yi ñu am ci. football bi fi ci da da au Sénégal. yalla may leen ñu am ndam lolu je pense donc pour le moment man mënu ma reprocher dara parce que déjà il y a deux gosses de Dara fofu moom limu la wax mo ci nek mais ci encadrement gis naa si Ndiaw. Mhm. Ndiaw dégg naa moom mooy coach préparateur des gardiens. déjà c'est est un c'est est c' est baax aussi mi ngi ci il joue un rôle. Mhm. donc à part il y a je pense que équipe football c'est la soxla. loolu la oui. physique. Un coach principal coach principal am nañ ko. ñoom Mor aussi ko xam un football. kii la général waaw te na équipe bi parce que loolu lu mhm. donc pour le moment je man mënu ko wëlee wax parce que euh, au minimum au moins jël nañ dara ci daara. bon xam man terrain bi daara ñu ñëw di football tey. pourquoi ñoom duñ fi entraîner parfois parce que fi la ñuy recevoir. ci li ma jàpp. donc c' pas normal depuis boobu léegi ñuy doog a ñëw ci terrain bi. donc terrain bi dëgg la ASC Daara ñoo ko moom mais ñoom mën nañuy coordonné ak entraîneur bi. bu jour bu mu entraîné wul mën na la jour tel entraîné wala heure tel. ñoom ñu mën a ñëw quand même exercer wu ci terrain bi. pour tàmm ko.

d'ici deux ans defar leen euh, mën résultats oui surtout mais je pense que c'est une très très très belle initiative pour parler d'installer installé kii bi fii. Euh, change bu rëy est-ce que néewul moins de pression sur ASC Daara ou autre chose. non moog ASC Daara a beaucoup d'objectifs. non mais une division lan rawante quoi peut-être. non beaucoup il y a division yi beaucoup, certes mais objectifs aussi beaucoup. non ñoom xam nga ñoom parce que ñoom centre la ñuy créé te centre bi ñuy créé. yemuñu rek ci football. mais xam nga ñoom ils ont dit bon j'ai entendu si rumeur nee ñoom danoo bëgg def benn benn benn kii euh, kii boo xam ne dans cinq ans ñu ngi ñu nekk dans l'élite. xam naa li nga wax. bon kon c'est-à-dire que ñoom bu ñu yéegoon tey jii yàlla tere AS Daara dina sa niveau bu que day def ko AS Daara niveau mais yéen ñu ñaan yàlla ñu ngi. AS Daara defee benn faux pas day wàcc fekk si leen. waaw. yàlla mën nañ sax yàlla tere mën nañ sax bañ a fekkante. parce donc ñoom ñaar ñëpp daal maa ngi leen ñaanal yàlla ma mais mais jàpp naa ne objectif yi bokkul mhm. ñee seen objectif moo gën a yaatu moo mhm. gën a euh, nekk loo xam ne daal dans l'avenir moo gën a kii ni ñu ko gën a yàgg dans le temps mhm. ñoom parce que ñoom de formation la ñu créé biir centre de bi day am ci ni ma ko déggee day am ay dañuy jël ay nit ñuy liggéey métier boo xam ne képp ku yor beneen nga fa dem mën nga dem donc ñoom li ñuy def lu baax la. ci am réew. Mhm. waxuma la sax ab dëkk bu mel ne Daara mais am réew baax na ci trop. Mhm. waaw. ah bon nan espérons que ñoom li ñuy bëgg réaliser si dëkk bi ñu réussir ko rek. Euh, mais côté kii laay waxee côté cadre bi ñoom boo xoolee seen équipe bi boo xoolee tey ñaari équipe ASR bi ñu def entraînement boo xoolee da xam ne équipe bi mooy fool championnat ASR def mel ni foolu championnat peut être ASR joxeeguñ seen équipement yi comme ni dafa am solo si équipe. te AS Daara je pense que tout le temps mon équipe bi ñoom ñaar loolu différence lan ngay wax si mooy organisation équipe bële si Jolof Olympique bi. non Jolof Olympique moom wax dëgg yàlla boo leen seetaanee sax ñuy entraîner. Mhm. wala ñu àndandoo seen joueurs yi tout ça centre pour moi que noonu la war a mhm. centre la c' pas comme une équipe comme l'AS Daara. Mhm. bien vrai que ASC Daara manqué dara parce que mënoo am un budget de 30 millions de manqué dara ASC Daara tey joueurs yi déjà, ñoom ñëpp dañ leen loger mais waroon nañ le wutal ay loisir je ne sais pas lu ñuy ko way peut être que dañoo jëlagul effectif bi suñ ko jëlee dana lay yëpp mm-hmm. donc ASC Daara amoon na sax quoi mm-hmm. mais centre bi moom moom mbay lu ma siy wax daal mooy nañ leen ñaanal seulement rek damay bañ rek buñ ko buñ ko jël daal def ko affaire famille waa Mor Ndiaye ak waa këram ko yaatal waa Jolof yëpp jéggi ci seen njëriñ surtout parce que Jolof Jolof yoo xam nga ñu mm-hmm. loo leen boole ñu bokk waaye boo leen boolewul ñu taxaw seetaan ñu taxaw seetaan te lii

malheureusement nak ñun. parce que 2016 je pense que Don nga wo euh, bon waaw. xam nga ñun malheureusement euh, district de football. Mhm. depuis que ñu créé les ligues. Mhm. pratiquement district de football yi ay figuration rek la. figuration on n'a pas de budget. Mhm. bon amuñu programme ñun on départ uniquement de de la ligue. de la ligue. yow man formation yi fi am gars yi ñu koy créé l' inspecteur du football. Mm-hmm. au passage. Euh, Dabo ak monsieur Souane. lépp lu ñuy def créé euh, dañuy jaar ci man wax ma. ma informé ñu ma war a informé. Mm-hmm. mais ñun dañoo amul budget. Mm-hmm. parce que ñun li on dépend uniquement de la ligue. pratiquement mën naa la district de football sax. tur bi rek moo fi nekk léegi. peut-être zone yoo xam ne amul ligue bi fu ligue bi nekkul ngay ni gën a. que ñun par exemple championnat même bu championnat bi ASC Radebeul ñun ñoo ko war a organiser. Ah. mais waa ligue ñooy envoyé ñi ñi ñoo koy gérer. district moo dem ba léegi. o niveau national district amatul sens. amatul sens ok. xam nga district lan la gaa yi doyee léegi. Mhm. pour voter ligue. ligue ok. parce que district au moins ñoo nekk ci département yi. Mhm. bu vote jotee les présidents ak les membres de district mhm. ñooy dem voter pour. parce que district bu ne day tànn ñaar wala ñett ñu dem au niveau de la ligue. pour fal le président de la ligue ak les tous les autres membres de la ligue de mhm. football. man looloo tax mais district vraiment amatul benn sens. Mhm. Euh, waxoon naa ko Samb Top ne ko moins bu ñu defaree benn budget moo ko Pape Maguette Lacor ma ne ko nañu defar benn budget. mooy bii passé bi ñuy def initiateur bi amoon au niveau de Linguère. Mhm. léegi ñun nañ defar benn euh, kii de bureau tuuti. ñu ko tuddee budget benn projet. benn projet oui. pour créer au moins ay initiateur de football et tout ça. Mhm. mais après inspecteur moo ne ma non yooyu euh, ligue nationale mën na ko organiser mais district ñun kii moo ñu ko affee. mooy chef de service de sport chef de service de sport moo tax ñoom ñooy organiser ñun ñu leen jàppale. Mhm. loolu la district daal léegi mën naa la figuration la ok voilà mais lan ngay lan ngay kon jox message jeunes yoo xam peut-être parce que daara bëri fanatique fanatiques ñoo xam ne dañuy bëgg ni football mais dem demul defi formation demul gëstu ji ko. léegi lan nga leen ban message nga loolu moom Mbaye man loolu dama koy reproché ñi nga xam ne ñoo fi nekk di yëngu ci football daara mhm. moo tax ku mel ne yow ma lay félicité di la encouragé man yow yaa ma kii ne ma formation waaw mais wax naa ñeneen demuñ xam nga du yow yaa fi nekk mhm. wax naa ñeneen wax yeneen ASC amul mhm. benn amul benn benn formation entraîneur euh, initiateur bu ñuy def te les équipes les ASC de daara yëguñu ko les présidents des ASC les membres de la zone tout ça ñoom ñëpp la ñuy informé ne leen initiateur kat am na. Mhm. am na benn année boo xam ne dañ ne woon entre Daara ak Linguère mooy je pense ñu def waaw couplé ñu defee ko foofu ay Daara 5 ñoo déposé xaw ma 6. 5 waay 6 ak man ak Ibrahima. ak Cissé ak Maxayta ak Cissé. waaw jeex na ñooñu la ak ah. Balla Ndiaye. ah ak Balla Ndiaye. boobu Balla Ndiaye demul woon. Balla Ndiaye ñëwoon après mujj na ñëw. Balla Ndiaye ci beneen bi la topp la ñëw seen beneen bi yéen ak yéen mais ñun. non initiateur Balla ci la bokk bii la bokkutoon. ñu suñu génération ak yéen. waaw que Balla ci la boobu. la si waaw ak Balla Ndiaye kon. Mhm. donc xoolal six personnes jóge daal la ci tout le reste jóge woon Linguère. Linguère ak seulement nag di leen dinaa la ko xamal ñi six yi jóge woon daara mhm. ñoo ëpp njëriñ fuuf les trente wala les vingt cinq yi jóge woon Linguère. Linguère waay parce que même Jaxate euh, mi nga xam ne mooy président du CODEF. Mhm. de Linguère daf ma koy wax mu ne ma yéen daara au moins. on a quatre cinq six écoles de football. Mhm. Linguère yaa kin seen école de football mooy bi Jaxate yore. Mhm. te pourtant Jaxate sax nekkul Linguère. Mhm. imagine Jaxate ñu affecté woon tey mu ñibbi. Linguère du ñu am école de football te dafa normal. encadreur yi fa nekk bëri nañ. nañ jël seen ay initiative créer des écoles de football. parce que loolu aussi am na solo. parce que dañu yow boobu yow bi ngay def sa premier degré bi. mais boo defutoon nekk ci exercer quelque part. mais doo ko def. te xam ne ñoom ñi nga xam ne am nañ initiative. ku ci demul liggéey mais doo def doo ko def. Mm-hmm. te man xoolal am na ñoo xam ne dañoo am ne donc waa Daara loolu mooy seen problème ñi nga xam ne ñoo ngi encadré les équipes nawetaan. Mm-hmm. équipe nawetaan yi xaalis bi ñuy yàq nañ ci jël benn trente mille quarante mille fayal kenn mu dem def formation. Mm-hmm. bu ñu déggatee ne initiative de football am na Linguère wala am na Daara wala am na Louga. waaye ngir yàlla nañ jël benn trente mille quarante mille. def ko ci formation bi. Mhm. bu ko defee au moins football nawetaan bi xaw a tane. Mhm. waaye entraîneur yi nawetaan yi ñëpp ak mën a yem yuuxu rek lañ fa nekk. <laughs> tëbal mbëkkal dóoral xamuñu sax li ñuy wax. parce que formé wuñu. y a une différence en homme de connaissance et homme d'expérience voilà donc bokkul quoi. Mhm. bokkul. waaw bon léegi championnat daaw bi am na lu ko arrêté woon malgré suñu équipe bi AS Daara moo jëloon paie mais li ko arrêté woon moom lan moo naroon arrêté waat championnat bi ren mais heureusement teeloon see wax. le ministre bi joxe na ak fédération accord ko pour mën nañ débuter championnat bi mais ak mesure une ñu génn protocole sanitaire bi Covid bi lan nga ci wax ci ak équipe est-ce que danañ mën a respecter protocole sanitaire boobu noonu ministre bi tek euh, bon mooy may profité ci occasion vraiment di ñaan nit ñi. Mhm. nañu gëm ne corona amna mhm. nañuy tak ay masque nañu respecter les mesures barrières. Mhm. corona amna dans ce pays là. sonal na nit ñi ñun wa Daara ñam nañ. képp ku nekk Daara xam nga ne les corona amna donc moy mu profité di lancer un appel toute la population ne leen nañ respecté les mesures barrières. Mhm. corona bi daara gii. li Khalifa Diakhaté waxoon au niveau na ci benn télé. Mhm. nee na bu yoroon jëmm. Mhm. mbedd moo tourné boo xam ne. il faut que nit ñi moytu particulièrement les jeunes. gisee jeunes yi ñu naan corona pratique pour nga gis un jeune buy takk masque sax c'est un problème xanaa gendarmerie ñëw. bu ñu waxee ñu ne man corona mënul lu mu dara mais corona bu la mënul dara day nekk ci yow. nga yóbbu ko say waajur yàlla tere ku yóbbu sa corona ci sa waajur wàll ko ko corona ba yóbbu ko yow loolu cas de conscience la lay war a def mhm. jeunes yi nañ conscient te bàyyi li ñuy def mhm. corona bi je pense que arrêté woon na championnat bi daaw mhm. man tiit naa ci ne rythme bii ñu nekkee bu ci dellu bu bu changé wul dina arrêté waat championnat surtout parce que tey la preuve gis nga ko match ASC Daara bi dañ ne woon ci protocole bi amul public warul am kenn warul seetaan mais tey gis nga daara la fa nekkoon. foofu tey bu fekkee ne corona am na fa mais mën na yaatu. Mm-hmm. donc te li xew daara mooy xew yeneen dëkk. Mm-hmm. am na dëkk yoo xam ne duñu am service d'ordre. Mm-hmm. te mënoo am match te championnat par exemple buñ ne huis clos la ñuy footballé. fan la ñuy jëlee xaalis bi. fan la ñuy jëlee xaalis bu ñu fayee arbitre yi. fan la jëlee xaalis bu ñu defee les dépenses. mais match si entrée ci lañ daan def. Oh. fédération daal joxe xëy na ak situation bi. xëy na fédération dina renforcer. Euh, waaw subvention yi mu daan defal ay kii les ligues. mais ligue boo xam ne yow jaayoo billet ñun ASC Daara bu match daan am ñooy fay service d'ordre mhm. ah ñooy fay croix rouge ñooy fay yeneen. Mhm. léegi su fekkee ne amatuñ ko passe amul. Mhm. fan la ñuy jëlee loolu. man loolu moo ma xaw a jaaxal. li ñu bëgg ne match yi moo ko làmb ji yëpp a yem fan la ñuy jëlee. même làmb ji bu ne huit kilos lañ ko bëgg a def yow làmb ji fan la ñuy jëlee xaalis. <laughs> football bi tey bu ñu ko defee huit kilos ñun bokk ñoom. Europe nga xam ne gars yi seen kër la ñuy toog di seetaan match. Mhm. parce que ñooñu c'est des yoo xam ne stade yëpp day fees avant championnat bi di commencé. ñooñu buñ footballee ak buñ footballu la xaalis bi dugg na. Mhm. mais ñun bokkuñu ASC e Daara buy football fii même bu fekkee da ngay jëli ñaari gendarme bu teg leen ci porte yi wala nga indi service d'ordre mhm. pour bañ kenn seetaan fa leen fayee. Euh, wala loolu fédération moo koy def. oui peut-être fédération mën na mën jël en charge ñooñu. Ah. mais mais mais Covid bi toujours Covid bi la ñuy wax quoi pour ñu mën a terminer l'émission. parce que je pense que. AS Dakar ni moo tey seen match tey bi war nañoo mën a plutôt benn protocole lañ génne protocole sanitaire kon war nañoo mën a essayer protocole bi tey jii peut-être yi ñu amoon force de l'ordre gars yi bañ a seetaan si wala joueurs yi seen bopp parce que même protocole dafa wax ne si banc de touche bi sax les joueurs dana war a toog à distance sol ay extra extra mais tey boo xoolee tey gars yi pré ko. oui même même banc de touche ASC ak public bi aussi bu ñëwee seetaan si Pape Mbaye amul service d'ordre amul gendarme amul dara mais man mel na man mënu maa taxaw ci buntu stade bi ne du ngeen dugg quand même yow boo ñëwee di seetaan si match ASC Daara man mën naa taxaw ci ne la doo dugg boobaa nga def ma lu lu bon problème bi foofu la de problème nit ñi les dirigeants des équipes mën a luñu les supporters dara sinon buñ ci mënoon dara duñu naan bu leen dugg mais porte yoo xam ne daf ne yàmbalañ may profité ñu occasion bi rek di ñaan suñu autorité municipale yi vraiment suñu porte stade a nekk nit ñi fi ne leen jaar dugg xar sax dañuy dugg sàkka nit mhm. donc nañu may ñaan autorité municipale yi mhm. di profité di nuyu le maire mhm. Momar Ndiaye tey mi ngi woon tey sax waaw ñëwoon na tey vraiment mu def acte bu rafet comme ni ñu ko waxee di ñëw félicité ASC Daara félicité ñaari équipe yi ak seen ay dirigeants le ministre Aly Ngouille aussi ñu koy félicité ñëwoon na fi. di mm-hmm. promettre ñu ne danañ jox dix millions. Mm-hmm. déjà il paraît indi woon na 3 millions. 3 millions mm-hmm. donc na ko def chaque année lu mu dee mu jox ñu 10 ñu koy ñaanal rek euh, yàlla na ko yàlla may. situation boo xam ne lép lu mu bëgg def ci daara ak ci Jolof en général mu mën ko def. mais lancer un appel à l' ensemble yeneen yi fi nekk tamit. particulièrement les ministres parce que daara mënul am ñaari ministres. am ay directeur de cabinet am lu nekk. quand même te du feeñ ci train de vie population bi particulièrement li nga xam ne ñëpp a ko bokk muy lu mel ni ASC Daara mhm. nañ ci dugal seen loxo xam ne ASC Daara ñëpp ko moom mhm. te kenn bañ kaa jàppee politique parce que ASC Daara bu nga ko jàppee politique ne peut-être Alioune Dieye mi ci nekk mhm. APR la bokk wala Alioune Dieye diw la ànd ak ba tax duñ ci jàpp moi je pense que loolu defet la te ASC Daara wax dëgg yàlla toll na foo xam ne euh, lépp loo xam ne waa dëkk bi ñoo ko bokk tey am nañ ñu ci war a mën a jàpp am nañu ministre mhm. c'est pas facile au Sénégal nga gis benn une commune bu ndaw comme Daara mu am ñaari ministre mhm. bëriwul mhm. am ay député on a au moins trois députés député waaw am ay directeur de cabinet am directeur de cabinet donc Daara seddu nañ ñun sedd nag vraiment nañ jàpp ne aussi bu ñu la séddee séddule pour ñoom dong dañee la sédd pour mbooloo mi nekk seen ginnaaw toog seen ginnaaw te mbooloo bi dara jiituwu ci ASC Daara man daal maa ngi leen lancé un appel muy sàmm Jobeen Ka muy le ministre Ali Diop. Mhm. muy les élus comme Ndeye Magane Guissé. comme Bounama Sall comme Agnès Mbengue. Mhm. wax dëgg yàlla dañ dugal seen loxo si ASC Daara man daal man damaa gisagul ñooñu rek kenn dugal loxo si ASC Daara et puis lan moo tax duñ ci dugal seen loxo. ASC Daara ñëpp a ko bokk. Mhm. mais comment ça fait ñenn ñi ne duñu dugal seen loxo si ASC Daara woon ci dugal politique ngir yàlla nañ jàppale ASC Daara. parce que ASC Daara tey warul manqué dara. mais euh, pour terminer pour dernière question bi est-ce que subvention mairie bi ñu ngi koy génne ñoom. non subvention mairie bi deux ans wala nga ni génn. lu tax wala sax trois ans parce que daaw xam nga lu ñu daan. daaw c'est exceptionnel waaw. mais commune bi aussi euh, xam nga subvention dafa nekk c'est pas une dépense obligatoire. Mm-hmm. c'est des dépenses yoo xam la euh, commune bi day am alal. Mm-hmm. day mën. am un, une trésorerie bu baax mu def ko. amul trésorier bu baax mu suspendre. kon donc c'est parce que peut-être voté wuñ ko. si si. Uh-huh. xam nga budget dañuy voté. mais li ñu voté ci budget bi da nga naan atum ren man bëgg naa am nangami million. Uh-huh. su ma amee nangami millions yi danaa liggéey lii danaa liggéey lii. Uh-huh. mais nangam millions yooyu boo ko amul li nga waroon liggéey fii da nga ci am loo xam ne doo ko def. tey li ngay def fii muy ay dépense dafa am lu ñu tuddee ay dépense obligatoire muy salaire yeeg. yenn fonctionnement yi yooyu force da koy def. bu fekkee ne yow si nga am ak si néew. Mhm. ay salaire rek la mën a fay ak yenn yi. mais yenn yi subvention yeeg mhm. ay coupe du maire ak yi nga gis fii mu tardé yëpp loolu la ko waral. Mhm. parce que mairie daara bi nit ñi fañ ko yaakaaree et gouvernement. li ñu yaakaar am nañ ko ci xaalis ñun lu ñu on vit comme un point mieux dañuy on vit au jour le jour. ok ANCAR ah, lim euh, commune Daara li muy am ci xaalis daanaka ci ay dépensam la ñu te les dépenses salaires yi bëri na yow gis nga personnel bu fa nekk bëri na yooyu yëpp ak yeneen yu mairie bi di def booy ci yenn subvention génne benn 10 millions jox ko kenn yaakaar naa du yomb moo tax pour ñu jàppale ASC Daara xam naa du yomb daal waaye nag dañ nañ góorgóorlu tant que mbas mi nag mu ngi fi moom duñ ko mën. waaw duñ ko mën surtout. yàlla rek mbas ñaan yàlla rek mbas mi yàlla jëlee ko fi. bu jeex ak jàmm comme yaa xam xaalis fu nekk. Hmm. wala mi jërëjëf. voilà merci beaucoup. Euh, ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo ak mbokk téléspectateurs yi. waaw maa ngi lay remercier bu baax. di remercier di féliciter encore une fois ni mu commencé woon. Uh-huh. les frères parce que uh-huh. vraiment seen initiative bi rafet na. Uh-huh. waaw honoré ngeen daara parce que jàpp naa ne Euh, studio bi ma gis nii. Mhm. am na studio nekk à Dakar sax. Mhm. ah wax dëgg yàlla am nañu ko. merci donc mooy lancer un appel comme ni ma ko waxoon ci ASC Daara rek. Mhm. waaye waaye kilifa yi nekk ci dëkk bi nañ jàppale gone dëkk bi. <laughs> daara buñ ne élection jot na buñ ne mobilisation jot na waa daara yëpp jóg. jàppale leen ñu am ay ndomb tànk mais nag àdduna lu ci gën a bon mooy nga am ñu fal la ngay politique ñu fal la nga jël alal ji lekk jël nguur gi nguuroo. loolu kenn du ko def nguurul sa nguur mais alal ji bokk ak nit ñi mm-hmm. donc may ñaan ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu fal leen nañ jàppale ñi comme par exemple télé bu mel nii mm-hmm. mais tey daara foo toll war nga kaa mën a jàpp pour man war nañ ko def de telle sorte que war nañ ko mën a wutal antenne foo toll tey ci waxuma la daara sax mais à une distance comme rajo yi nga mën ko di ko am ñuy émettre sans ñuy jaar ci kenn mm-hmm. ba pare autorités yi nga xam ne ñoo fi nekk yi ñuy def mais nañuy leen di invité di leen jox ay di fay bu leen mayu temps nañu leen invité fay leen mhm. ñoom li ñu leen fay ñu li ñu réalise parce que lu mel nii waaw ki nga xam ne yaa ngi koy jàppale muy raam mais boo ko jàppalee bu jógee tam moom moom day gën a baax rek kon nañu jàppale vraiment gars yi mhm. nañu na ci autorité yi jàpp parce que daara léegi mhm. namuñu dara ci côté boobu ñi fi nekk nag yàlla teg fi nañu dimbale nit ñi ci football bi ci activité jeunesse yi lu waa dëkk bi soxla nañ ci jàpp may profité nag di félicité di nuyu aussi sama coach. parce que man aussi peut-être yéen da ngeen may tooy mais man dama am coach spécial muy Sidi Diop. Sidi man mooy sama formateur. parce que lépp lu may def ci football ba ma yoree jàmbaar sax ñu daje ak ay saara. Mhm. dama ko daan moo ma daan jox plan d'entraînement bu daan def. dëgg la te boobu dama daan daje ak ay saara. Mhm. man mooy centre bi lu may def ci daara ñoo ko bokk. Mhm. ci wàllu football lépp lu may def ñoo koy bokkandoo. bi ñuy créé. trois tàngara bi man ak moom la woon mhm. mu ñu waxtaan ci ba jubóo ci daay ka bokk ci mhm. école de ci la mhm. man ak mom ñoo créé woon lépp lu def ci football ci sport man ak mom ñoo koy defandoo donc maa ngi koy nuyu bu baax ñaanal rek yàlla na ko may def ak sutura di ko nuyu di nuyu kilifa yi nga xam ñoo ci dëkk bi di nuyu particulièrement nag lima ma waroon samay kilifa parce que mosuma wax ci lu mel nii te nuyu sama papa ak sama yaay di leen ñaanal yàlla yàlla may fay nu gudd may leen wér defal leen sutura donc loolu laa waroon njëkke maa ngi jéggalu moom laa waroon njëkke te xam naa sama maman moom suba xaw ma kañ ngeen koy teg waaye jour bu ngeen koy teg ca taat télé ba lay toog du génn tànk parewul ndax moom dafay supporté daara télé bi da koy seetaan rajo yi da koy déglu lépp lu ñuy def daara daal moom lañu fan yi duñ may ñu jàmm ci rajo bi Afé Afé dégg naa dafa am rajo fani yi ak bëccëg mu ne radio af donc mom day suivre affaire yi mo koy ñaanal rek yalla su yalla may fa fan gudd may ko wër defal ko suñu kilifa ñun ñëpp yow nak mbay ma lay gor félicité ma lay yow ñaax dama lay ñaax uh-huh. football mo doy war jalousie ci football la ëpp uh-huh. nga fiiraange ak ay gafantay ay kii ci football bi lepp fouf uh-huh. donc yow bo amul un objectif do do dem yow amatul objectif malgré ñu lay pàdd ñu lay tël neel man fay laa bëgg a dem dama fay dem te boo góorgóorloo incha allah di nga fa dem parce que ndaw nga respecté nga nit ñi yaay ngi góorgóorlu yaa ngi gëstu mm-hmm. ak ñeneen yeneen boo yi fi nekk di góor góorgóorlu donc maa ngi félicité ñëpp di ñaanal aussi ASC Daara mm-hmm. yàlla na yàlla may leen ndam mm-hmm. les écoles de football comme coach Cissé dama koy ree dama koy romb di ko ree ne ko dama laa yërëm parce que dafa sonn ñooñu ñëpp bokk na war a dimbali jolof olympique moom li ma leen lancé rek mooy euh, li ñuy def am na solo moom ñoon tamit يلا يلا ما يلل نعجله آمين بود دفعي لول جارني جلف جبل بس كجيني تني جبت وعلي غيرنك وعدا كارنك ما ملاني وخرجنا أمنا في أي بيرسون ريسورسي فينك من ال approaches بولا لتش أفري بقى دفع damay jàpp rek pour mu réussir. dëgg la voilà donc loolu la quoi ñoo ngi leen di ñaanal ñoom tamit. Mhm. yàlla yàlla may leen ñun bu ñu jógee national 2 bu déwénee ñoom ñu ñëw national de mhm. fu ñu jéggi rek. ñoom ñu fekk ñu ba liggéey ñu daje foofu. waaw ba liggéey rek ñu daje fa di jëkk ci waaye yàlla bu ñu bokk daal yàlla bu buñ mos a bokk. niveau yi waaw amiin parce que su boobaa am ku ci perte. ba ligue allah voilà à part daal yàlla buñ bokk niveau. amiin bu nee ba ligue 1 nag yàlla ñu fa yàlla dajale su boobaa nag ah dina neex. amiin <laughs> ñaanal daal euh, yal na yàlla jëlee mbas mi ci réew bi nag ndax mbas mi nag sonal nañu lool ma bon jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi lii moo nekkoon émission Focus Sport ñu si remercier sunu gan bi euh, Lamine Gassama di remercier mbokk téléspectateurs yi jàkkaaru ñun di ñu seetaan nii jërë ngeen jëf